tay du dal di yomb anam yu metti waaye ñu lay jaajëfal bu baax te xam ni ñu toppal boobu la xibaar Léopold Tamba gis nga ko kon werante xuxaan tekki tubéy la Ousmane ko def te ji ci ngoon foofee ca Ziguinchor waaw euh, mi ngi Ziguinchor parce que euh, defe naa ne foofu la cosaanoo donc euh, c'est normal que mu dem Ziguinchor peut-être que bu toogoon Dakar peut-être dafa am neneen nu muy demee mais moom mooy apprécier fu mu nekk nii parce que jusqu'ici la justice est au ralenti et quand la justice est ralenti day permettre à la personne visée moom tamit mu xool yan kii lay déployer euh, yoo xam ne nii peut-être que dina ko may ay temps de réflexion balaa muy dellu si peut-être euh, certainement pour aller à la pour aller pour que ñu mun a def le ce moment-là ça veut dire ne que moom tamit euh, mi ngi nekk à la lisière de plusieurs pays c'est-à-dire que Guinée-Bissau mun na dugg Guinée-Bissau dugg Gambie wala dem sax Guinée ak feneen mais de toute façon c'est à lui maintenant de se déterminer mais ce qui est sûr ne que su nekkee à Ziguinchor peut-être qu'il se sent là-bas beaucoup plus à l'aise qu'ici à Dakar donc euh, loolu la def mais euh, de toute façon tamit euh, ça ne va pas peut-être refréner li nga xam ne ni moo di audience bu ñu war a def noonu mhm. donc ça ne va pas refréner de toute façon ce qui est sûr mooy il y aura toujours des gens pour le poursuivre pour essayer de l'amener pour que ñu mën a juger ko mais bon comme il l'a fait il est était balaa mu doon sax dem Ziguinchor demoon na ba gambi mu photo fa mu envoyé ay photo nit ñi gis ne il est allé dem na Ziguinchor maintenant qu'est-ce qui va lan mooy topp ci loolu euh, wait and see <laughs> Ndeye Fatou gis nga ko kon mu nekk tension boo xamante ni ba léegi ñu ngi koy dund foofee ca diwaanu ko Ziguinchor gis nga anam yi nga xamante ne moom la Abdourahmane Diallo defee directam waaw métti na de soxna Ndeye Khady ndax ku ko gis moom xam ne jamono yi euh, métti na si moom mu nekk si terrain bi pour mu def liggéeyam na ca ware waaye ñu ngi koy encouragé bu baax te it euh, di am euh, rafetlu ci li nga xam ne moom lay liggéey foofu ci Ziguinchor euh, tey nag. Ousmane Sonko génn bi mu génn xam naa ne lu mu calculer la lu mu ciblé la ndax ñëpp xam nañ ne tey ji yeewi askan wi def nañ conférence de presse mais aussi F24 wax nañu ak presse bi joxe sax ay dat yoo xam ne préparé nañ ci ay manifestations du ñàkk ne en tant que leader politique da doon wane ne il est toujours là et que ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam nañu xam ne il est toujours la léegi nag ñun ñu ngi xaar ci moom mu communiquer parce que événement yi am ci Ziguinchor métti na bakkan root na ci deret tuuru na ci jafe-jafe yu bëri tar na ca donc nag bëgg nañoo xam moom mu nga xam ne moo waraloon jafe-jafe yooyu am mu wax ak askan wi wax ak militants yi mais aussi expliqué wu ci lan moo indi fitna gi ak nan la ñu mën a def ba saafara ko Mhm. am na solo kon ñu daal di wax ci li nga doon wax léegi sax di waa yeewi askan woowu conférence des leaders doon dajeeg taskatu xibaar yi ñoom nag di xam leen ni ki ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai bile dinañu daal di amal ab mobilisation bu yaatu ci département yu Dakar yëpp muy mobilisation boo xamante ne ñu ngi ko dëg mënoon ni ki 19 mai waaye ñu mujjee ko nag dàq kon euh, bala rek 26 euh, mai lañ tey sàkku nag moo di njiitu réew mi président Macky Sall daal di jënd ci mbirum troisième mandat dañu ci ànd ak Alassane Balde ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai bi ñu demal nag di bés bi coalition Yewwi Askan Wi jàpp ngir amal beneen manifestation mobilisation bu ni mel nag jëm ci ñaawlu xupp ak xotal yi nga xamante ni moom la régime bi nekkee jamono ji Déthié Fall moom gis ni lu ëpp day daal di tuuru. C'est le moment de rappeler au président Macky Sall ses responsabilités c'est le moment également d'attirer son attention sur la direction qu'il a prise sur l'orientation qu'il a prise qui peut est extrêmement préjudiciable au pays. Khalifa Sall moom gis ni Sénégal waruñu woon yegg si fii gannaaw lu ñuy dund ci atum 2011. parce que su fekkoon fàttewuñu 2011 et son cortège de morts de blessés d'emprisonnés on ne revivrait pas 2023 niñ koy dundee. c'est terrible qu'on en arrive là. conférence de leader bi nag ne tey la gën a ànd ak kii di Ousmane Sonko ba tax ñu jàpp ni procès bu ni mel ab théâtre lay gën di niroo. booy dem tribunal mel ni benn benn star ngay bondé non mais enfin soyons sérieux quand même on est dans une république. rassemblement bu ni mel nag euh, daañu ko amal Dakar waaye it fépp ci département yu réew mi rawat na ca diaspora bi ba tax ñu sàkku ci askan bi ñu mobiliser wu ndax jàmmarloo dafa jot ak Macky Sall mi nga xamante ni xememte fa mooy ñetteelu mandat bu mu bëgg ci mim réew. jaajëf Alassane Balde Léopold Tamba nga ko kon mu mel ni tension jeexagul ci réew mi. tension jeexagul parce que soo déggee de par et d'autre ñuy ne non nous sommes dans une république et je me pose la question te ñu leen war a poser question ndax ils savent qu'ils sont dans une république parce que de temps en temps tu vois ne que il y a eu des échauffourées de temps en temps également tu as vu des escalades ay ah, ñuy yokk maanaam euh, yenn wax tu ñaaw yi ak léegi donc lu ñu xalaatoon ne que lii warut a woon mun a am Sénégal tey jii ñi nekk ci bopp politique bi maanaam ñoom ñooy gën a xajamal mbir yi ñoom ñooy ne ñoom li ñuy def lépp dañ koy teg ci loo xam ne ne lu aw yoon la mais soo xoolee nga déglu bu baax seen i wax di nga comprendre ne que ñii ils ne sont pas encore prêts ku ci nekk ci ñoom am na loo xam ne moom ngay viser mooy fauteuil présidentiel bi parce que gis ngeen sax yenn coalition yi ñu commencé di effrité wu donc voilà mais suñu posé question ne dañuy defaat euh, maanaam benn rassemblement le 26 te gis nañ ne que les rassemblements yi nga xam ne ñoo précédé il y des morts donc ça veut dire ne que il faudrait que ñoom tamit ñu xoolaat set bopp su dee dañuy jéem a def li nga xam ne ne benn manifestation bu mag à chaque fois saa bu ñu ko defee il y a eu des morts donc je crois savoir ne que ñoom tamit war ñu def en sorte que suñuy amal yenn rassemblement yi que ñu def tout pour que bu mu am ay morts parce que ces enfants yi ñuy instrumentaliser c'est des enfants ay doomu yàlla la ñu donc ñuy éviter à ce que des politiques yoo xam ne ne qui ont mûri ici et qui ont vieilli ici. ñuy jël xale yi ba pare di leen instrumentaliser ba pare di leen mettre à la di leen mettre à l'abri war leen a mettre à l'abri Ndeye faat mu mel ni seeni i waayjur tamit war nañu bokk ci ñi leen di mettre à l'abri ndaxte gone moom yaakaar ne ba benn at bi waayjuram war na mën a am poids ci moom ba mën ko téye ci këram ndaxte boobu ba léegi ñi ciy génn sa àdduna ñi ci gën a bëri ay ay ndaw yu ñu mënoon téye ci kër lañu. ay ndaw yu ñu waroon a téye ci kër mais aussi ay innocent yoo xam ne xamuñu sax ne li ñuy def seen bakkan mu ngi ci xott loolee mm-hmm. nag responsabilité bi ku nekk am nga ci wàll société bi am na ci wàll waajur yi am nañ ci wàll mais aussi ñi nga xamante ne ñooy force de l'ordre yi jàmmarloog ñoom ci mbedd mi am nañ ci wàll ndax ñooñee xam war nañ leen mën a encadrer am nañu leen gérer ba nga xamante ne bakkan du rot donte nag euh, ful moom bés bu amee wala mu jóg rek mbooloo moom xalaat amu ci xel amu ci xeltu amu ci don dënn la ñuy demee moo tax toujours rek day am ay débordement euh, li wërte wër mooy waajur bu nekk fi mu ne mooy jël njabootam sàmm ko ndax dafa war a aar njabootam téye ko ci këram ba bu ëllëgee bu fitna amatee dootuñ ci gisati bakkan bu rot yeewi askan wi nag ñoom seen euh, jotaay ak taskatu xibaar yi man damaa jàpp ne Yewwi mu ngi dundu ces derniers retranchements ñu bëgg ko ñu bañ ko coalition bi durée de vie dafa nekk ci jëppaandaw gi ndax des des na tuuti bu ñu jëmee ci élection présidentielle bi ñoom bëri nañu candidat mais aussi Yewwi Askan Wi moo bokk ci parti yi nga xam ne keroog ba ñuy def rassemblement F24 dañ doon yuuxoo xalifa Sall te ci la bokk donc Yewwi dañuy sauver la fas mais ñëpp xam nañ ne ci biir Yewwi am na benn discorde boo xam ne ñu ngi koy rumbanaat ci seen biir génnagul mais li li liñ naan nañu dem ba ci kanam muy kon kujje gi ci seen biir dafa am ay wujj ñu wax uh, ci lu jëm ci wàllu waa jàppoo nga xamante ni tey ji daje nañ ak taskatu xibaar yi ngir nag uh, daal di rek uh, nag sàkku ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di autorité yi ñu bàyyi xel bu baax ci manifestation yi nga xam ne mu ngi faral di am ci réew mi boobu ba léegi ndaxte la cay yàqu bari na te lu ni mel nag dafay daal di delloo ginnaaw li nga xam ne moom moo di seen fournisseur ak ñi nga xam te ni ñoo bëgg a investir ni ki ñoom ñi nga xam ne ñoo ciy yàqule lu bëri waral ñu daal def kon daje yi dañ ci ànd ak euh, Tidiane Diallo. ak situation politique bu ñu nemmee ko fan yi ci dëkk bi di jur ay manifestation yu bëri biir gox-goxaat yi waa Inakwa jàppo ñu ngi lancé appel acteurs politiques yi. parce que xam ngeen ni liy dund réew mi ci loxo commerçant yi la nekk opérateur économique yi ko mën ne nag 96 à nos jours ci confiance lañu doon liggéeyee ba léegi bu coow amee xeex am ay nit dee confiance boobu day yàqu parce que ñu doon liggéeyal dañuy téye seen alal kon ñu ñaan ñi nga xam ne ñooy yëngut ci loolu. ñu dal ñu ut jàmm te xam ne xeex boo mës a gis lu mu métti métti ci taabal la mujj. ne suñu sukkandikoo ci waa Inakwa jàpp seen fournisseurs yi nekk bitim réew seen xel dalagul ak tension yi ñu gis ci dëkk bi ba tax na ñoom ñu ngi woo acteurs politiques yi nañu toog waxtaan ngir rassurer.